tond ak établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère bi leen indil gamme vite fait ñoo leen ni may seen émission xalaas vendredi 17 février 9h37 ci rajo Futur Média mbokk yi jërë ngeen jëf kontaan nañu bu baax a baax ñu ngi leen di sant bu wérit ci ni di àndee ak rajo Futur Média waxtu xalaas jot ci RFM ci ànd ak passe partout maa ngi lay nuyu bu baax passe. maa ngi lay nuyu Ndiaye la ziar di nuyu auditeurs yi internet di ziar ñëpp ñaanal jàmm. jaajëf jaajëf Aliou Ba mi nekk ci machine bi jaajëf sa Mbaye mi nekk ci digital bi tax ngeen mën di dund. xalaas en direct ci plateforme digitale yu groupe Futur Média nuyu partenaire yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci xalaas di leen remercier bu baax a baax di euh, Optique Vision Plus Sénégal lunettes partout et pour tous euh, la santé de de vos yeux notre préoccupation première ñoom loolu la ñu wax di ci dox nag di ko waxee saa su nekk ak ay lunettes yu baax lunettes yu yomb lunettes yu garantie lunettes yu moderne accessible teg ci ci njëg yu yomb Optique Vision Plus Sénégal nekk fépp ci réew mi showroom bi ci VDN bi ñu am place bu nekk Kër Mbaye Fall Optique Vision Plus Sénégal mi ngi Mbour yéen ñi dëkk Touba ubbil nañ leen boutique Optic Plus Sénégal foofu fële it ci diwaanu Louga ak saint fu ci nekk Optic Plus Sénégal mi ngi ci seen wet établissement waa kër Serigne Touba frère nekk ci wetu askan wi di leen gunge di leen jàppale ak ay produits yu baax ci gammam bii di vite fait vite fait di gamme boo xamante ji gamme complète la lu nit di soxla rek ngir dundam neex mi ngi ci gammu vite fait bi ñu établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère andil frotté bu baax te dalay bayil xet gu neex ñu andi nak ciuray bu neex neex ngir kër yi ciuray bu neexal kër yi biro yi fu mu ci mën di doon muy ciuray vite fait euh, pâte dentifrice vite fait crème épilatoire vite fait crème ou wala crème euh, pied vite fait lepp ci gamme bi établissement waa Serigne Touba Fall et frères c'est numéro de téléphone du 77 555 11 11 77 555 11 11 partenaire Benen bu ñuy gërëm ci bijouterie La Rotonde des bijoux de qualité bijoux en or 18 21 24 carats mm, ci ay design yu yu fait. rafet euh, garantie technique, or pur or bu bijouterie La Rotonde ngeen ko meuna a mi ngi rue Amadou immeuble La Rotonde ci rez de téléphone de téléphone 33 842 65 95 wala 70 639 60 60 77 348 96 96 di bijouterie La Rotonde di partenaire ci bijouterie La Rotonde ko nek ba légui mois de février bi ngir euh, ñi nga kon dañu bëgg ay cadeau yu bax yu ñu jox ñi euh, bu ñu fa démé sen aaju dina faju ndax dinañ fa gis bijou yu bax ci ci ay njëg yu yu ñeneen ñoo xamné ne dañuy gungé euh, sen ay abonnés sen ay partenaires gungé wa réew mi kon ci mois de février bi di mois Saint-Valentin modi Kirène avec Orange mi indi Saint-Valentin 2.0 ak Saint-Valentin 2.0 ay euh, lu yu beaucoup de bare mën ngeen ko gagner. lu ci melni ay de smartphone mais également ay euh, duo de montre connecté ay duo AirPods ak yenen yenen ni ngañaay mom le kon euh, ki len avec Orange indi nan nga ci Defcon, da ngay def kon da ngay souscrire ci Mixel ci 690 wala bokk ci 220. ñooñu ñooy partenaires yi ñuy àndal ci xalaas xalaas ci rajo Futur Média ñu leen di gërëm bu baax a baax fas yéene nag suubu ci xalaas bi ànd ci ak euh, Passepartout passe ma dellu la nuyuwaat ginnaaw bu ñu nuyoo yi. ziaraat la Ndiaye ziar ñëpp ñu ñuy déglu ci waxtu wi di leen gërëm di leen sant. Mm-hmm. Ndiaye dañuy dem fan Tunisie. sori nga de jóge nga Maroc ba Tunisie. man damay wër rek su ma ñëwaatee dem Libye <laughs> il faut nga dem Kédougou nag waa Kédougou ñoo ngi lay laaj. Kédougou incha allah Pape moom ah, sama waa naa ya fa nekk dañu war koo lijjanti du jeex. sama waa ji Pape euh, waaw. maa ngi maa ngi dégganteek ak moom démb. Uh-huh. xam nga nag man damaa bëgg lekk Ndiaye balaa fu mu mënta jëm lekk laay préparé ba pare. dëgg la danaa ko damay paral ay bëy ak ay yooyu noonu. Uh-huh. waaw bu su ma ñëwee Kédougou incha allah fan yu néew. jeex na xalaas gi na fa dem. ñu dem Tunisie lu fa xew. après ñu dem Libye euh, dañu am suñu ay mbokku sénégalais. Uh-huh. ñett lañ yoo xam ñu ngi jógee Italie ñëw Sénégal jël euh, compagnie Tunisie Tunis mhm. mais dañoo dañoo def transit Tunisie pour après jël avion Sénégal. Mhm. lañ ñu doon ci xaalis dañ ko ci aéroport Tunisie ba. Mhm. somme bi nag ñoom wax nañ ko kenn ku euros. nga ko mais nous ñett soo boole li ñu yor. matul matul matul somme bi ñu tere. parce que li ñu dajale ñoom ci ñoom nangu ko mooy dix mille trente euros. fi mu ne nii ña nga takk ci dëkk ba. seen xaalis nañ ko bind leen ay kayit neen dem leen. seen problème mooy bu ñu ñibbisee. fan lañ koy lijjantee. maanaam fu ñu man dem ngir jotaat seen xaalis. waaw fu ñu ko nangoo aéroport Tunisie. waaw ah ñenn ñoom am nañ dem ambassade Tunisie. dem nañ ci ambassade euh, ambassadeur ba nekk foofu bi teewal Sénégal foofu. Mhm. ñun leen dañ ko lijjanti. waaw da ngaa yor lu ëpp 10 000 euros dañ koy ah ci yenn dëkk yi bokk. waaw ah, xam nga nag réew mu nekk ak la fay dem waaw xëy na buñ ko nangoo ñoom ñu ko nangu nanguñ ko seen coobaree bopp ah te ñu déglu leen d'abord déglu nun nag jafe-jafe bi nu am ay sénégalais lañu nekk Italie léegi eh, bi yàlla dogalee ñu jóge Italie dagg bee air Tunisair waroon a jóge rom ñëw Tunisie pour jël fi air bi pour ñëw Sénégal léegi noo ngi fa waroon a départ dimanche ñëw Tunisie léegi bañ waree départ rom avion bi am tardement bam biñ dikkee ñoom pour jël avion bi aussi ñu dugg ci avion bi ñu war a def directement pour ñëw eh, Tunisie bu boobaa kon dañ fa fekk avion bi jëm si Sénégal ñu demaat beneen sori bu ñu wax Venetia léegi bañ fa jógee door a ñëw bi biñ ñëwee fekk avion bi jëm si Sénégal dem ñu ne ñu yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw ci avion bi jóge Italie du ngeen mën a dem parce que avion amul léegi dañ leen di yóbbu hôtel bu ko defee bu ngeen demee ci hôtel ba def fa alterné talaata ñu jël si leen fa lañ fanaan dimanche fanaan fa alterné talaata ñoom ñu jël si ñu bi ñu jël si waatee indi wàcciñ ci buntu aéroport bi ñu jël suñuy sac di ame ak sun suñuy bagage dugg ci biir biñ duggee ci biir jaar au lieu kon ba ñuy dem ñoom ñooñu ñoom ñooñu accompagner ba génne ñu mais bi ñu ñëw gisuñu kenn bis bi daf ñoo wàcc ci buntu aéroport bi rek ñu dugg waaw ñu duggee nag ba jaar ci fi ñu war a euh, jaar yépp ba ñëw ba ci policiers yi ba dugg ci policiers yi joxe suñu euh, passeport ñoom ñu defal ñu tampon départ léegi ñu war a dem ci lañu fina euh, ci lañu douane yi daal di ne ñu ñëw leen ñu dikk ñu ne ñu est-ce que yor ngeen xaalis ñu ne yor nañ xaalis ñu ne da ngeen koy déclarer comme ñoom tudd ñoo xaalis ñu ne leen fii ñoo ngi xaalis nu génne suñu xaalis bañ gis ko ñu wan leen ko ñu ne andi ñu wàññi ko kenn ku ne ñu wàññi sa xaalis ba xam ne mu toll ñu teq ca mille mille six cent euros daal la koy sànni ne la jëlal léegi li ci des nii amoo droit pour yóbbu ko ñun ñu jàpp ne xëy na déclaration bi kon lañ war a def pour ñoom ñu dañuy def déclaration bi wane ne da nga fay jaar ak lu ëpp li nga fi war a jaare kon déclaration bi la ñuy def door laa delloowaat sa xaalis ñu daal di koy waññi ba mu jekk ñu def ko ci ay paquet daal di téye nañu bii xaalis du dem parce que da fee jaare ak lu ngeen fi te jaare ñu nekk fa dem kaw dikk suuf ñu lànk léegi daal di ñuy bindal ay kayit yoo xam ne jox nu ne nu léegi bu dee ba ngeen a voyagé dem leen ci air bi ngeen dem seen yoon bu ngeen bëggut a voyagé ngeen ngeen resté ngeen resté fii léegi ñu dem ba air bi di war a départ man ma jël foo yi yi nga xam ne moom la ñu bindaloon comme waa air bi ñoom xamuñu ndax ñun jël nañ suñu xaalis wala déet ñu wax leen ne leen léegi air bi yéen balay départ nañ leen wax ne suñu xaalis dañ koo jël ci xamuñu yan condition lañ ko jëlee foo yi ñuy dox bu ñu wàccee Sénégal yi lañ ñu jox fan ngay dem pour di ko fa joytu fooy dem ci sénégal pour di ko fa joytu man maag ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñuy ñetti nit ñu nongul ñu suñu xaalis ma ne leen nan toog nañ bañ a dugg ci avion bi ca toog léegi buñ dee jël suñuy responsabilité ñu jël ko dem jëli hôtel fanaan fa buñ xëyee jàmm ñu dem ci ambassadeur bi ñu expliqué ko parce que comme moom moo fi ki nga xam ne fi nekkal sénégal moo fi suñu président léegi nañ ko wax liñ ñu def avant ñuy génn réew mi ba xam ñoom lañ moo ci seen xalaat léegi dem nañ ci ambassadeur bi wax nañ leen ko nee li liñ ci man lépp daañu ko ci def léegi nun noo ngi noonu la waaw nga am droit yóbbu ko li ci des noo koy téye waaw léegi nag kenn ku ci ne nun ñett biñ bloqué liñ li ñu jëlal lépp 2030 euro la. xalaas dégg nga hmm. xam nga nag ku nekk bitim réew liggéey nag ba war a ñibbi sa réew moom. Hmm. ndog-ndog bii dal la tamit ah. mu nekk six millions cinq cent soixante quatorze mille et quelque. dix mille trente euros yi waaw. Ah. six millions cinq cent euh, soixante quatorze euh, soixante quatorze mille francs CFA quoi. Hmm. Ame, gëw ma nag ne maanaam dina ñàkk seen xaalis du ñàkk yoon bu ñu mën a jaar ñaay xam nga nag da nga andi cas boo xam ne pour ma wax ci parce que man parce hmm. que mas naa aéroport ak lu weesul ñaay <laughs> da nga wax xam ah déet déet dag may weddi àllante déet déet weddi ma la de ah déet su ma waxee pare nga ne ma nga wax loo xam kay mooy par exemple dag ma weddi àllante lii nga nar wax ni maanaam da nga bëgg wax ni bu weesu <laughs> ñu continuer <laughs> nañ leen dimbali daal ah. fekkente ne ambassadeur boobu mi mi ngi dégg te mën ci dara ah. nañ leen taxaw waaw parce que xëy na dëkk bu nekk ak loi am tamit waaye daal ah, lu metti la de kii mu ne enfant possédé doom ji doom ji am lu ko possédé Ndiaye te doom ji la am possédé mooy waaye Ndiaye lii nag problème la de hmm. Ndiaye ndaw si en fait développement bi ci deuxième partie la ñëw mais première partie dafay expliquer lii daal xale bi hmm. doom ji daa am lu ko lu koy dugg hmm. par moment mais bu ko duggee day wax waa kër gi di leen wax maanaam kii wax dootul nekk xale bi dootul nekk xale bu jigéen bi wax. mais li ko ah jigéen la. waaw mhm. mais li ko dugg mooy wax ak ñoom. Mhm. naan leen ci yaram bi laa def sama sama sama douche ñu baal ma faa def sama waañ falaa laa dëkk comprendre nga. Mhm. yenn saa yi muy kii xale bi pour xale bi di xaru di yëg ay étage pour tëb xaru. ñoom dañuy dégg li kooku di wax. di wax nii ñuy dégg. mais ci xale bi la koy jaar waaw. yenn saa mu ne yaay ji yow kii jurloo ko maa ko jur léegi nag li indi problème boobu yëpp nag. Mhm. dafay ñëw ci deuxième partie bi. Mhm. mais da nga déglu première partie ba pare. xale bi elle a dix ans mais day mel ne ku ñu possédé day jékki-jékki ñu possédé affaire bi possédé ko mais sonal na xale bi tarate actuellement sama doom macha allah yàlla da ko may xel a jàng mais mi ngi ko bëgg a yàqal jàngam di ko defloo yoo xam ne yu kéemaane la parfois day bëgg sax xaro ba ma nekkee en état en 2012 la xale bi juddu ba ma nekkee en état dama nekkoon ay difficulté yu métti xanaa naa sax si mbedd léegi nag depuis lors ma am ko mu juddu après ñu nekk Dakar itu mais xale bi day jékki-jékki mel ne ku ñu passé de nekk ci moom day wax ak ñun sama sœur ak sama yaay la nekk actuellement mais day wax ak ñoom même man mii su may wax ak moom su ma fa demee parfois ko sang garab nii parce que ñi dañ parfois ma taseeg benn sëriñ mu ñaanal ma si mu jox ma ay garab ma sangu ma ko ko sangee da mu commencé day xuloo man di wax xale bi elle a dix ans macha allah elle est tellement intelligente daaw seen classe moo fa jël première mais ren moom première compo sixième la jël da ko perturbé daal nekk si moom si yaramam bi léegi nag bi nekk si moom si yaram bi la def ay douche am ay këram xale bi day waxtu di wax di wax di xuloo ñun barki démb sama yaay sax la bëggoon xeexal affaire bi ko sonal trop day jékki-jékki dugg ci moom mu nekk mu nekk beneen nit mu jékki-jékki xale bi ñëw xale bi su ñëwee da ngay sentir xale bu dal duus waxee nànk mais lee su ñëwee rek voix am day mu nekk beneen genre nit bëgg naa ko ma si jàppale trop trop trop parce sama doom sonn na te mi ngi bëgg a yàq te dire rab bi ci boppam moo ma ko wax ba sànq si mujj may wax ak moom mu ne ma carrément ma ne ko yow fan duggee sama doom mu ne ma ba ba nga ko ëmmee di taxawaalu noonu la ma ko waxee mais da ko sonal da koy possédé ba pare da koy feebarloo pour mu ko bañ a continuer jàngam xam nga te loxo yi lay jàpp day jékki-jékki loxo yi di jam affaire bi man au début gëw ma ko woon mais sama raq bi nekk ak moom ak sama yaay ma si gën a kii ba benn jour ma dem kër ga ma koy sang garab rek affaire bi na commencé di xuloo man jour boobu da ko naroon sax xaruloo mu yéegal ko ci balcon néeg bi pour mu daanu maa ñëw xëcc ko beneen bi mu kii ko si escalier kër gi si suuf juutal ko fa tamit parfois dañ koy bëgg sax di dóor muy def ay conneries te day fekk affaire bi la affaire bi moo koy def moom da koy wax danaan pourquoi man melu ma ni xale yi normal la koy wax de tout le temps day jékki daw génn kër gi dem juutu ci balcon yi pour daaneel ko instant boobu rab bi mooy nekk ci moom keroog da koo def man daa maa jékki-jékki mu daw rek génn kër gi ni ma ko ñëwee ma gis ku jigéen ma koy laaj ndax gisoo xale bu romb ku jigéen ki ne ma déedéet gisuma ko man daa ma jékki-jékki rek boobu nag la sama doom duggal ci yaramam bi ne ma rek tudd sama tur si laa ko gis nii mu ñu ngi ko juutal pour daaneel ko dégg nga ci wax ji mu naan laaj na rab bi fan nga mu duggee mënu ko ba nga ëmbee di taxawaalu. Hmm. loolu nag mooy revenir njaay ci essentiel wax ji parce que ndaw si dafa ko ko ëmbal. Hmm. bi ko ëmbalee bañ. Hmm. ay waajuram génnee ko. biñ ko génnee mu ñëw Dakar nekk ci benn kër mbokkam. kooku ne ko mënu maa jël risque ci kër gi ba nga accouché. mu génnaat foofu di ci mi. ci moment boobu nag la ko duggee nag ba ya ko cay fekk fekk ko ci bëri am na yeneen yu gën a doy waar yoo xam te ni mi ngi ci wax ji. ah ñu déglu ko déglu. rafetlu ma am la it dama nekkoon ci mbedd mi de c'est-à-dire defuma lu bon de mais dama amul woon fu ma sama famille nekkuñu woon à Dakar ba ma bëggee dellu sama kër famille sama papa ne bu fay ñëw fii Dakar sama benn tante moo ma hébergé woon mais par la suite mu ne moom du jël risque mu ne ma nekkee en état ma nekk ak moom ba nekk à terme après si laa nekk ak moom nekk ak moom mais après ma jóge fa si mbedd mi laa daan fanaan comprendre nga loolu indi bi dal ko mbedd mi sama neuvième mois ba may dugg sama neuvième mois si laa dem si la ma sama yaay yóbbu seen dëkk ñoom foofu laa amee doom après si laa ñëwaat Dakar commencé di liggéey affaire bi su ko duggee la may wax loolu la ma naan da koy wax même xale bi su lucidé danaan ba pare li si garaaw mooy rab dafa am tur njuuxaan la tudd danaan mi ngi nii si ya bi si biir bi la def këram tey nee si ginnaaw gi def douche am comprendre ci baatam bi foofu la def waañam loolu lay expliqué léegi nekk pour xale bi génn ci moom dañuy gis xale bi dañuy jékki-jékki ne ko joxaat bàyyi sama doom wala sa rakk bi jigéen bi wax ko loolu bàyyi sama bàyyi xale bi bàyyi ko ma ne ko indi ma sama doom léegi su ma ko waxee loolu dañuy gis day def ay manière yëkkati biir bi di ci lal bi yëkkati biir bi yëkkati dënn bi xëcc baat bi après nga gis xale bi ñëwaat ci moom comprendre nga noonu la koy def situation yi précaire la ma fekkoon parce que sama papay doom moment boobu nanguwuloon grossesse bi ba xale bi amee deux ans c'est la ko war a connaître mais c'était trop tard situation yi ma doon dund sama loolu moo indi lii lépp xale bi affaire bi dugg ko ci sama grossesse daal la ko xale bi ku ko comprendrewul parfois mu def ay bêtises parfois da koy sax a lekkloo ay kaka wala bëgg mooy naan saw yi yëpp dafa koy def loo te dafa nekk loo xam ne ko xamul dëgg ko ko expliqué day mel film ci moom parce que rab bi ci boppam loolu la ma moom ko ëmbee da ko dugg léegi nag man parfois nii ma dem di ko sang sangu ko ay garab xëy ak yooyu dañuy gis di ba pare moom day bañ ma ni xale bi sama doom la dana ma juróo ko sa doom ma ne ko sama sama doom la su ko defee muy yuuxu yuuxu yoo xam ne di jooy sama doom bi jigéen la elle a dix ans ren a euh, ma ki ma ëmbal dafa bañoon léegi sama yaay moom elle était avec moi mais pour delluwaatoon sama kër papa moo doon problème bi sama papa bëggul woon loolu fii à sama nijaay laa fi nekkaloon ne moom ay ay problème jabaram nekkuma woon këram par léegi nag sama kër bi ma nekkoon jël woon risque pour ma nekk fa tout le temps ak grossesse bi ci laa nekk di fanaan ci mbedd mi loolu moo ma indi lii lépp waaw xale bi day yeewu énervé di jooy mu ne affaire bi day bëgg sax di sëy ak moom kenn xamul góor la kenn xamul jigéen la da koy def loo yoo xam ne mooy loolu te xale bi xamul loolu day yeewu di laajte ba pare affaire bi da rab bi danaan ko yow de yàlla nga gaaw rek gis say règle dafa sonn daal sonn na trop li gën a bi si boppam ci wax ak man ba si suñu waa sama yaay sama sër da leen ne carrément dinaa leen um dinaa leen um ba doo leen yor ko fajee man loolu la ma wax te su ma la waxee yàlla seede na ne xaw ma kañ la xaalis gi sama loxo ndax affaire bi daf ñu um um carrément day taxaw di ñuy jotee ay soor dégg nga Ndiaye. natt bu ko yàlla teg de mi ngi ci waaye. Hmm. xam nga luñ ci war a jànge hmm. man bokk sama sama xalaat bu gàtt. Hmm. mooy doom nu mu mën di mel. ak njuumte bu ko mën a dal ci àdduna. muy góor di jigéen. amul benn raison bu war a tax ay parents. rejeté ko. voilà merci ko. parce ay doomu aadama lañu. yàlla ñu sàkk. ñuy juum mhm. di sonn di bëgg di mer yooyu dafa bokk ci dundu doomu aadama yàlla ñu ko mooñaale mhm. donc ki nga jur mu def njuumte nga génne ko mu tumurànke mhm. xam nga wasin doom ju am rab moo moo gënoon tuuti ci li ko mënoon a dal la mooy wasin na doom bakkan la doomu aadama la yàllaa ko sàkk mais gis nga coono bi mu ko teg te lépp ñoom ñëpp lépp mu ngi tàmbalee ci génne bi ñu ko génne. Mhm. beneen bi ci topp mooy ñi nga xamante ne jii dañoo yore ëmb kenn génnewule ñu nekk seen kër jëkkër wala seen kër yi mbokk nañu gàttal seen tànk fii Sénégal la. de réalité de. la ca tubaab yo tubaab ngay gis mu ëmb ba toll ci weeram nekk ci plage yi. Rihanna amagul doom. allo président. de de xaar Ndiaye xaaral Ndiaye. representanter representanter fra Republikken